ginnaaw bu kilifa diine yi waxtaanee jël dogal bu tëj la nga xam ne moo di marché Ocass ndaxte lañ fa nemmeeku ci ay cas communautaire feebar bile di covid-19 coronavirus dafa bëri lool bisub tey yemook ñaar fukki fan ak ñett weeru avril gis nañ ne marché Ocass bi kenn nekk fii tey jëlee kenn xëysiwul gis nañ takk der yaa ngi ci marché bi foo tourné di nga leen gis teg ci place bu ñu gis mu tijji dinañ la tëjloo baa ñi teg la ay daan te nag ñi ànd ak suñu délégué marché bi ànd ak ñoom suivre leen tey nag maanaam ni ma la mën a waxee fii ci marché Ocass Ocass moom demuma ci yeneen marché waaye fii ci marché Ocass moom yàlla dogal na nit ñi tëj nañ 100 pour cent gisuma kenn ko ubbi xam naa li fi nekk daal mooy xanaa nit ñi xaw a dañ kumpa di seetaan lu xew ak nangam nangam waaye li ñuy dañ dañ kumpa na kenn koo ci gis ku ne ma nga takk ab maskam kon daal dafa mel ne waa marché Ocass moom wéel nañ ndigal li nga xam ne moom la sëñ sëñ moom la sëñ bi bëgg ndax bi ñu ñun bi ñu yëgee ne sëñ bi joxe na 200 millions fab ab dundit séddale ko wax dëgg yàlla ci boobu lañ daal di xam ne kon lii kat du ay caaxaan te ndigalu sëñ bi bu ci d'accord woon du ko joxe 200 millions du lu tuuti ba tax na wax dëgg yàlla noonu it mobilisé wu nañ ci euh, santaane yi nga xamante ni dañ koy santaane docteur di ko santaane di moytu tere yi nga xamante ni moom lay tere wax dëgg yàlla maa ngi sant waa marché bi yépp nag. Euh, marché bi nag moom euh, ñetti fan la ñu waxoon ba kii waaye nag yàlla daa dogal li ñuy wax kaa communautaire amoon ama amaat wi ñu ragalaat moo tax ñu yokk ko def ko une semaine biñ ko defee une semaine ñetti fan yu njëkk yi nag moom danañ boo bu jàllee danañ may ñi nga xam ne ñooy jaay lu ñuy lekk lu mel ne que yàpp ak euh, ay jën ak ay ay ay légumes ak yu demee noonu ñu may leen ñoom bu ko defee ñu mën a jaay ndax nit ñi mën a am lu ñuy euh, togg ci seen i kër préfet bi ak sous préfet ak commissaire suba teel ñoo ma jiitu ci marché bi wër nañ marché bi yëpp ba ba not ba xam est-ce woon def nañ ko ñoom ñoo ñëwal seen bopp yàlla dogal a sax man bi ma daataan ñëw fekk naa leen ñu wër ba dem